partout dans l'univers yéen a kaay yi El Hadj Ahmed Aïdara bismillah sàggante waaye ku dee ma nga am nag ca coronavirus ka dee mar day taali ubbi tribune ni kaay ne ñu gars yi bàyyee ku ne nga jikkooye daal dine dellu sat nag ca Ndakaaru njaay jël jóob ak musiba yo agression ye commencé na accident yi nit ñaa ngay dee mbooloo ye commencé nañ di dajawaat amu teyage ne ko danduma moytu leen borom scooter yo lékotu yooyee ne kaay ne moo ñu yokk mar day taali waaw dama ne la fukki fan ak juróom yi ne weeru juin bi kenn dootu ko bat lu tolloog ñaar fukki doomu aadama ak juróom lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, maa la ko wax ba sobri ne dama ne corona ba dee waaw fukki doomu aadama la rey ci ñaari fan laa la wax allahu akbar la ilaha illallah barki ne moo ñaay ñeent la rey waa ministère de la santé de action sociale xam leen nañ ne kon ni ki démb juróom benn ci ay doomu aadama ñoo dee ne la bilan ba dee waaw léegi nag jàpp leen ne kon juróom ñaar fukki ñetti weer allahu akbar la ilaha illallah sur ça ne dama ne ñeenti fan laa la wax waaw fukki doomu aadama ak ñeent dee ñaar fukki urgence réanimation juróom-ñaar fukk ak ñeent dee la jàngoro ju kon dugg démb libération yi ne kaa ne dama ne la région de Dakar waaw daal di nañuy passé ñeenti junni ci ay cas allahu akbar la ilaha illallah ngay tikkee jóob njaay waaw ci lu jëm nag ci wàllu xeexuk mas mi la te diwaanu Thiès ci évidence yéene kaay ah. ministre bi nee na dajalee gum nañ lu toll ñaari téeméer ak fanweeri junne juróom benn téeméer ak juróom fukk deux cent trente mille six cent cinquante masques ñi ne askan wi le ba soobli ne ay da dee waaw daal di nay convoqué nag lu Mansour Faye Diouf Sarr ca assemblée maa la ko wax sur saane ay damba dee waaw daa bëgg a audité kon Mansour Faye ak Abdoulaye Diouf Sarr <laughs> waaw ci lu jëm nag ci wàllum juróom benn fukk ak ñeenti milliards soixante-quatre milliards yi nga xam ne dee wàllu wér-gu-yaram moo ko tax a jóg ay damba kay la muy naqarlu <laughs> ah. matériel médical bi nga xam ne nag maanaam ministère de la santé kon da koo dalloo condition yi ca ma war sa jaar seen loxo pharmacie nationale d'approvisionnement waaw kay sëriñ ñooñu ñooñu la ay a borom bawol de waaw nee na lu jëm nag ci wàllum lekk gi leen dimbalee aide alimentaire ba waaw dañu ne woon ci ñaari semaine kon lañ koy waaye boo seetloo ne gën a bëri ca ñi nga xam ne ko ñoom ñoo ko yoreel yëpp jotaguñ seen kit alimentaire ba léegi ni lee yéene kaa gi ne lii tax nag kon ba ay dambooj mi ne daal di ne bind kon Moustapha Niass enquête yéene kaa ne médecin contractuel de waaw nga xam a na ñu ñëw kon eh, de jotaguñ ko ba léegi ni lee yaa jum corona jàngay rey waaw nit ñaa ngi dee nit ñaa ngay dee cam te duwaanu Casamance é ubbil enquête yéene kay dañoo armée bi a ginnaaw ñaar te ñoom ba ñu faatoo waaw am fukk yoo xam ne kon am nañ ay gaañu gaañu dee armée ba daal nañu songu kon rébellion yaa la wax bal ya tàkk de démb ca Casamance é mar di tali dama la xeex ba ca Casamance kon dooraat na sa goxoog adayaan waaw rébellion ca boppam kon ñoo ne askan wa kon duñ fa dellu soit rek laa la wax loolee doy na mbay caam daa laaj ndox mi nga xam ne day coupé suba ngoon gu dégg ba cëg moo jaaxal nit ñi lé te gis nga waa Suez ah bilaay yéen a jugee ci avion daanu ci sareetu mbaam ca askanu ci boppam de ñu ngi commencé rek ci rek sd dëgg la sur quotidien waa seen oo kay waaw daal dinañuy mar loon Dakar a ngay jël jóob waa Dakar a mar ginnaaw jafe-jafe eh, jafe-jafe bi nga xam ne nag moom la assemblée nationale nekk de moo jaaxal nit ñi le quotidien yéene kay de Abdoulaye Daouda Diallo ministre finance waaw daal dinay jël indi ay coppite ci li ñuy joxe terrain yi rawatina bàyyi bi termine yéene kaa de politique bu bon bi nga xam ne maanaam nag moom la nguuru Macky Sall gi nekkee ci ni ñuy taxa taxatee kon suuf si de waaw Mamadou Lamine Diallo bu tekki ah nee na téeméer boo jël ci xale yi nga xam ne kon amaguñu fanweeri at ak juróom juróom-ñetti fukki at di quatre-vingts pour cent waaw du ñu am kër de maar day taali fii ci Sénégal duñ ko dégg de xulak ma soo de duñ ko def te ñu nee na kenn du wax l'observateur de tool ba ci bilis baa ngi ni de waaw Cheikh Yérim Seck de ka fa nañ ko dikk maar day taali libération yéene kaay la ko ti yéene kaay de ne procureur te nee na ko caabi féete ginnaaw eh way samba eh way samba enquête yéene kaa ne waaye tëjum kasow Cheikh Yérim Seck boobee waaw taskatu xabaar yi de ak société waaw jóg nañu taxaw de mobiliser ne waa ji nañu ko bàyyi dëgg la critique CEDEF Amnesty International Reporters sans frontières convention des jeunes reporters du Sénégal d' ñu benn yoon de ci Cheikh Yérim Seck bi nga xam ne kon dañ koo bëgg a xañ kàddu loolee du fi am de te Cheikh Yérim Seck ci boppam lañ ne nañ ko génnee tribune yéene kay ne ginnaaw nag ba ñu jaxat-jaxatee kon suuf si de le foncier jaxat-jaxatee tamit kon géej gi lée licence de pêche waaw l' état a perdu yaay li ngeen xëeñal dëkk bi neexul yéen jël ay licence de pêche daal di ko jébal chinois ku naqarlu waa affaire yi attaqué la eh waay Samba waaw jëm ci wàllum suuf si lée sénégalais yi ci boppam falu ñu ma jambal jaañ Macky la ñu fal waaw yéenay rendre compte problème bi nekkul ma jambal jaañ dafa am cinquante neuf mille mètres carrés waaye nan la ko amee waaw kay yéene kaay dee média gi ne Pape Moro Diouf waaw ma ngay seetal Macky ak nguuram gi dee naan nekkul na ñoo jaxa-jaxatee suuf si bu la neexee waaye su dee nekkul na nguuru Macky Sall gee jaxa-jaxatee suuf waaw waaye ni ñuy joxee suuf si te mu lan moo tax ñoom ba biñ ñëwee annulé wuñ ko ko pour delloo askan wi dee seeni espace yi nga xam ne kon Jibril waaw bu affaire ci 24 heures waaw nee na ñin ñoo nekk ay nit yoo xam ne ay njuuma la ñu naan mes waaye nit ñi xam nañ leen dañoo nee na ñoo nar a yàqal président Macky Sall la la wax <laughs> maître Jibril War ne waaw mais xool leen Abdoulaye Wade CDS ni leen gars yi amee ne leen ci te loolee moom la ñuy gis nii di ko gisaat xoolal ni ñu naroon a toroxalee kon Mamadou Makhtar Cissé far dañoo mujj weeru contrat scandale du siècle te ne nag atile maître Djibril Waar ne lan ci wàllum na ay nit yoo xam ne dañoo mbuboo journaliste indi faux débat lal ko ci ay kat lu dul dëgg ay sos te buñ demee ba ca njeexal la yàqal nit te kookee du doon kenn ku dul président Macky Sall sempig ci RTS nee nañ dinañ yóbbu Racine Talla retraite yarinug Racine Talla ci boppam ko la ñuy naqarlu nee nañu Racine Talla dem na ba indi fa mbindaanam laa la wax mbindaanu Racine Talla ca kër taa Racine Talla la jóge directement ñëw ñu fal ko fii RTS jox ko fi liggéey te RTS am na ñoo xam ne am nañ fa fukki at yàlla laa la wax amuñu contrat wala ay CDD syndicaliste yi ne xool leen ni ñu toroxalee Fat Sakho xool leen ni ñu def Oumy Ndour abi mu mbéyeg ñama àndal dé ca RTS waaw nee nañ Racine Talla daal na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem a dem na dem waaye nag gis nga ak lu racine tara dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem bu leen fàtte pétrole bi de parce que suul gaz du ko tere